borom yaay sama xarit su ma jëndee ginaar may la pooj ba ñu gëjoon la dégg gëjoon la gis nees ci lan la ne sénégalais yi koo tasanteel mu naan ana nees ndax pooj ba gëj na ñëw. avec plaisir nga tàllal ma sa micro nees mi ngi Sénégal pour toujours dama tëggoon rek génn ni ma koy defee chaque année ma génn dem bitim réew ñëwaat di seeti suma mag dem fu ma dëkk muy fu ma miin di Amérique di nuyu suma mag bu baax di wax maa ngi nees mi ngi Sénégal coow li bari na mais nees mi ngi Sénégal guddi mi ngi ba day génn rek ñëwaat. est-ce que jotul revanche amaat. soxlawu ma ko maa man man magam man seen waa kër mais laaju ko. ndax koy yow ak kan la. Tapha wër fu ne maa ngi ko fekk. nees Tapha Tine day de. fu ma ko fekk xeex ak moom maa maa ko avertir man maa loolu nees. man nees may wax Tapha Tine fu ma la fekk xeex ak yow armé wul préparé pooj bi kañ lañ ko gis kañ lay ñëw bi yoon génn nañ génn nañ lu garaaw mbay lu bees taat ay raatale ay bu ma taxal kon yàggatul dara mun nañu xaar nees jàppal ak ban ak bu ma taxal silwiseel laa fi laa génn bu ma taxal silwiseel bu ma taxal amul xëppoo suuf amul sa ndaanaa la ngi nii mbokk yi nees a ngi nii nees reeti na